major yu Pastef ñu gën leen a xam ci turu avocat Ousmane Sonko ñoom nag samp nañ ay jéego yu mag a mag jëm ci bésu alxemes ji ni ki suba ci lu soxal nag ñaareelu recours bi nga xamante ni moom nag lañu ñu daal di def ca tribunal bu Ziguinchor te di ci xaarandi mu dal di am nag ab njeexital bu mucc ayib maanaam tribunal googile nekk foofe nag ca Ziguinchor nangul leen seenub recours ndax bu ko defee rek kii di Ousmane Sonko di njiital l'ex Pastef ñu mën a teggi radiation bi ñu teg ci ndodam jëm ci liste électorale yu présidentielle 2024 ca jamono jooje tribunal bu Ziguinchor mu ngay nag daal di jàngataat wala sax xoolaat bu baax a baax gile dossier bi nga xamante ni moom la ay avocat Ousmane Sonko daal di teg ci gile table ngir rek bu ko defee seen client di candidat li nga xamante ni moo di Pastef mën a bokk nag ci élection présidentielle yu 2024 ñoom nag avocat yooyu la ñu ngay nag yaakaar walla sax ñu ngi wax ni am nañ yaakaar bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di gile dossier ndax saytuwaat nañ ko bu baax a baax te def nañ ci li leen ci war lépp ngir rek bu ko defee recours bi bi la yoon bañ a lajji ci seenub côté noone nag la ñu ko daal xam ne ñoom ay avocat wu ki nga xamante moo di Ousmane Sonko ñu leen di woowee tamit état major yu Pastef ca jamono jooje ñenn ci ay farandooram ku ci mel ni ki nga xamante ni nag moo di juriste bi ñu nga xamante ni kenn dootu ko naataable fii ci biir réew mi di Falla Fleur ak rappeur bi tamit di nit dof nga xamante ni def na jaloore yu am am solo ci li nga xamante ni moo di musique bu Sénégal ñoom nag ñu ngay di seenub at ginnaaw euh, ba ñu ko jàppewoon woon ca barabu liggéeyukaayam euh, weeru euh, juin gee génn ba tey moom Falla nag dinañ ko àttee suba ci àll alxames ji noone nag la ko xibaar yi daal di xamle niki tey ci àllarba ji li ñu koy tuumaal nag moo di rekk appel à l'insurrection ginnaaw ba mu defee li nga xamante ni moo di ay publication yu bëree bëri ci page Facebook am loole nag la ko yoon daal di toppee bu ñu ca noppee keneen ki di rappeur bi nga xamante ni moom it kenn dootu ko naataable ci biir réew mi nekk nag ab rappeur gu ama am solo wala sax ab rappeur goo xamante ni ñu bëri nag dañ koy may nopp mu di nit dof moom dina xaarandi lii di chambre d'accusation bu cour d'appel ngir xam moom it ana nan lay mujjee ak ki wànnentoom ginnaaw ba juge d'instruction bi rejeté li nga xamante ni moo di demande de liberté provisoire am ginnaaw ba mu ba ko ay avocat am laajte woon ngir rek mu am lu ni mel ay avocat am nag daal di nañ defaat beneen appel ngir mu mën a am lii di liberté provisoire gi nga xamante ni moom nag la soxla jamono ji ca fàttali rappeur bi di Nit Doff mi ngi mi ngi nag ci ab mandat de dépôt depuis janvier ba tey ñu koy toppee nag euh, lu ñuy wax diffusion de fausses nouvelle outrage à magistrat et menace de mort sur les autorités judiciaires loolee ndax nag euh, kii di euh, nit dof ay mbiram xaw tàggate tàggatémbe ca kanamu juge d'instruction bi waaye bu ñu sukkandikoo nag ci ay avocat am ki nga xamante ni moo di nit dof du yàgg dara ci seen xalaat bu gàtt dina am nag li nga xamante ni moo di liberté provisoire jamono jooje nag. képp nag ku bokk ci Pastef nga xamante ni yoon teg na la teg na la loxo yaa ngi xaarandi nanan ngay mujjee ak i eh, say jafe-jafe foofe nag wala sax ca kanamu juge ba ku ci mel ni ñi nga xamante ni ñoom nag la ñu daal di eh, tuddub seenub tur wala sax naataable leen eh, kii di Fada Fleur ak Nit Dof ak tamit ñeneen ñi nga xamante ni yoon nag dale naa teg loxo te ñu bokk nag ci li nga xamante ni moo di Pastef jamono ji nag ñu ngay xaarandi di seenub atte di fàttali rek ni kii di faada kii di Falla Fleur moom niki suba dina taxaw nag ci kanamu yoon ngir rek ñu daal di koy atte